non problème bi mooy que dañoo commencé ay travaux yoo xam ne dañoo dem ba si biir ñu arrêté ko DGPU moo commencé woon ay travaux travaux yooyu noonu ce son des travaux yoo xam ne d'ailleurs nous savons que ne du régler problème bi carrément mais munoon na am sax début de solution ñu arrêté ko parce que Eiffage n'avait pas accepté pour que ñu ñu ñu bënn euh, euh, kii bi euh, kii d'évacuation bi. a des promesses venant des autorités comme quoi. dinañ euh, Eiffage jox na euh, euh, autorisation ñu bënd ko mais le principal problème mooy que ne lépp lu ñu amoon daaw sax as tuut lu ñu amoon daaw muy daloo bi nga xam ne fa lañ naan def fa lañ naan évacuer ndox mi su su su demee ba yàq kër yi ba pare ñu bañ mu stagner ñu ñu ñu jël ñu jël suñuy pompe waa Sipres jël seen pompe jël ndox moomu jaalale ko si dalo bi dañoo ñëw jox C3S Serigne Seck ñu jox ko autorisation mu construire foofu ñi ko jox autorisation du keneen lu dul préfet ak le maire Alioune Mar loolu tax ma naan ñun dañoo sentir que ne dañu poignardé parce que bu ñuy combat ne combat bi ils étaient à notre côté ñu ngi doon def tout pour que tout le monde ah les autorités si kaw ba mu àgg ba si président de la république ñoom seen bopp ñu jël suñu problème en charge mais tey jii ñu nous sommes menacés de mort parce que en réalité même hier travaux yi ñu arrêté nii. il y a un enfant si si fan yi passé boo xam ne dasee see damm ça veut dire que su ñëwee su taw bi ñëwee su beneen première coup d'eau tombé lu ñuy am mooy gën a graaw que daaw lu ñu amoon daaw sax dina ëpp loolu lu ñuy sàkku mooy ñu commencer travaux yi pas ñu ñu am si ay promesse dañoo bëgg ñu àggale travaux yi parce que travaux yi ñuy def nii fu mu nekk nii lu fi nekk nii suñ ko bàyyee nii du sotti nañ commencé travaux yi ñun bëgguñu ay promesse ñun réalité la ñu bëgg population yi dañoo mandaté pour ñu am réalité et puis travaux yu baax pas ñuy pas ñuy indi ñuy indi ay euh, poto kii yoo xam ne tuyau yoo xam ne yu màgget la dañu koy installé aussi encore ñu bëgg problème mu daloo bale ñu trouver si une solution on parle de nu mu tëddee que actuellement euh, C3S dafa am titre foncier mais la mais vie wu population moo ëpp solo titre foncier cette personne la a assez d'argent pour aller ailleurs dégg naa DSCOS arrêté na ko bu nga xam ne dañoo yuuxoo et consort bu ñu am si bu ñu am si arrêt bi nañ def lu ñu war a def nañ sauver les population nañ sauver ay vie yi nga xam ne moo risque dañ ko ñuy risque de perdre suba kenn muy président de la République muy kenn kenn mënul taxaw ne yëgul lii ñun dañuy bëgg alerte alerter suñu rôle mooy alerte alerter j'espère que duñu bàyyi comme ba ba ba li kël dal Kër Massar dal leen ba pare ñuy doog def see travaux là ñun ñi nga xam ne peut-être actuellement ni ñun alerté nañ actuellement ñun yaakaar nañ ne xanaa ñoom dinañ gis lii ñëw def la ñu war a parce que autorités yi tamit ñun ñoo leen di jox suñu suñu suñu impôt dañ leen jox pour que ñoom ñu régler suñu problème et je crois que ne prévenir moo gën di guérir. ñun jeunes yi chaque novembre bu jotee dañuy feebar ndax lan bu tawee dañuy génn di jàppale ji suñu dëkkandoo yi yor suñuy peel ak suñuy rato di xool nu ñuy génnee ndox bi. ñu bëri nag feebar nañ ba ba tane fu mu toll nii essence yi nag lenn lañ bëgg mooy travaux yi ñu demare mooy travaux yi ñu démarré nañ ko continuer tuyaux yi fatt na essant yi nii programme bi ñu def Kër Massar war nañ ko mën a def fii nii te dañoo bëgg sax ñu def ko fii parce que mënuñoo xaar ba ñu inondé boo xoolee am na ñoo xamante ne génn nañ seen kër dañuy dem loué 4 mois dañuy dem loué ji ba au mois de mars la ñuy soogay dellu sewaat seen kër loolu metti na léegi nag ñun leen lañ bëgg nañ ñu continuer euh, travaux yi suñ ko mënul ñun jeune koñ bi jóg nañ ba sonn saa yu ñu jógee le délégué de quartier Kéléma ak paa yi notable yi ñu téye ñu léegi nag cette fois si moom dañuy bàyyi 15 jours lañ leen may naroon nañ indi lu ëpp lii nii tey ci ci mbooloo bi naroon nañ ko indi mais dañoo am comme écho euh, préfet mi ngi wax ak ñoom ba nee nañ trouvé nañ terrain d'entente ak waa euh, Eiffage pour ñu mun a jàllale tooy lenn lañ leen di wax. d'ici 15 jours buñ ñu joxul euh, bu ñu continuer wul travaux yi d'ici 15 jours si rien ne va dañuy dem EFA euh, am nañ fii nu mu tuddatee autoroute à péage bi am nañ sortie neuf sortie neuf bi la ñuy bloqué jeunes yëpp pare nañ ñëpp ngi suñu ginnaaw ñun dañoo sonn ñun politique wuñu ñun defuñu dara ñun ñun dañoo bëgg lenn rek lañ bëgg mooy ñu defaral ñu ndox mi mën a dem ñun loolu rek mooy suñu problème. Euh, daloo bi nekk fële na le daloo bi am na ku fa construire woon daaw ndox mi mënul dem. waa si SUPRES dañoo sonn daaw image yi jàll nañ si si si si si télévision bi ndox mi mënul dem ñu kenn mu ngi fa construire ñu ñëw ñu ñu 3S xaw ma jox nañ ko titre foncier xaw ma lan ak lan on comprend pas daloo bi nañ xool nuñ koy résoudre benn instant parce que de 15 jours yi ma wax moom lañ leen may bu 15 jours yi jaalee nag ñun ak ñoom du métti du yomb fii nii sortie neuf bi waa péage dinañ ci am problème waa waa waa Tëngéej dinañ ci am problème du ñu bàyyi mu sedd. waaw problème bi bi bâtiment bi dee andi mooy dafa amoon euh, benn dalu boo xam ne c'est un passage d'eau naturelle donc eau de ruissellement yi ñëw jógee Rufisque euh, yoonu yoon normal am mooy mu jaar si dalu bi bu demee traversé tali bi bu jógee foofu si lañ koy pomper mu mu mën a dem si exutoire mais la fait ko ñu tabax fi bâtiment bi ça fait que voie d'eau naturel boobu dafa bouché wu et que donc pour hivernage bi ça va être assez compliqué de de xam nag nan la fan la ndox bi nar a jaar Euh, parce que voie do bi y une partie buy buy jógee cité euh, euh, ndox buy jógee cité Serigne Mansour cité Babou salaam donc jaar si presse traversé ñëw ba ci mer et waroon traversé jaar si dalu bi léegi ndox boobu yëpp dafa nar a bloqué wu y trois axes de venue do yoo xam ne fu ñu toll nii on sait pas fan la nar a retrouvé wu et doute dafa nar a ñëw si sur la cité Cyprès et bloqué wu foofu. minimum. minimum bi mën a am comme conséquence mooy ñu am inondation c'est la conséquence minimale conséquence maximale bi mooy Sipres moom dootul nekk nekkati cité euh, parce que boo xoolee euh, réseau d'assainissement euh, au usée bi dañu am benn pompe de relevage te fii nga xam ne foofu la inondation bi di gën a tar foofu la station bi nekk donc ça veut dire que bu ndox bi ñëwee pompe yooyu dootul mën a fonctionner donc si cité bi yëpp kenn dootul mën a ubbi ndox parce que bu ubbeekoo ndox bi du am fu muy fu muy évacuer boole si réseau électrique bi c'est aussi souterrain euh, donc xam na ne ñëpp xam ne ne ndox ak électricité moom àndul donc bu ndox bi yéegee ba dugg si niche loolu mooy tamit électricité dootul am si cité bi donc situation bi ñuy bi bi ñu jëm ni situation bu nar graw graaw a graaw a graaw donc déjà année dernière def naa gis nañ ko si médias yi on avait beaucoup souffert waaw te temps yu te boobu bi muy am on avait des solutions pour évacuer ndox bi et qui faisait que ndox bi même bu fekkee ne ñu ngi inondé te inondation yu métti la woon au bout de deux jours trois jours ndox bi dina dem dina def ay dégâts mais bii pas amul sax solution cest dire ndox bi dafa nar a ñëw yéeg avec des dégâts yoo xam ne kenn xamul fu mu mën a fu mu ñu mën a yóbbu donc situation bi grave na trop trop trop ñu ngi ñaan vraiment que Euh, autorités yi ñu mën si jóg trouver ñu apporter ñu ay solution am na comité technique nag boo xam ne ñu ngi si jokkoo am na yu yuñ ci xalaat euh, donc xam naa xëy na bu bu autorité yi ñëwee rek nañ si mën a waxtaan ak ñoom avec leur euh, leur bras technique ñu mën a xool fileeg hivernage bi parce que yàggatul parce que daaw def naa le 5 juin tawoon na daawaati jéeg peut-être le quinze donc instant si sursis daal leen nekk waaw fi ñu toll nii si sursis leen nekk.